avancé ba ngeen laal. on est ensemble <laughs> léegi nag dañuy dem ci combat boo xamante ne nag moo lëmb réew mi mu jur fi problème yu mag muy Ada guy gi Gui. Ah. non combat la boo xamante ni professeur franchement man xaw naa xaw naa ci tiit xaw naa ci tiit trop trop trop trop réaction Ada ak Gouye gi seen jàkkaarloo yi seen open press yi supporters yi Ada beneen problème juddu ci ak beneen mbër ci biir combat bi noo leen jàngatee làmb jooju noonu Ada ak Gouye Gui. mbër Sadio Mané. ban dafa am nga beneen problème judduwaat si ak beneen mbër. waaw ban problème la. problème mu Liss Ndiago ak Ada Fass. Mhm. mais loolu détail la dafa mel ni comme bay jàll xaw a fël ci mbukaay beeg yooyu noonu. non cest loolu non def na que loolu loolu dafa bokk ci luy uh-huh. mais vraiment loolu moom du woon débat bi sax. mais li nga la ankay débat bi la. waaw d'accord bi la mooy actualité bi. d'accord moom laa wax d'accord xamal loolu tey lépp am na fi sax. d'accord d'accord loolu yëpp am na ci d'accord je sais mais. donc dafa am lu ma bëggoon combat boobu. mën naa ci bañ sax yàgg-yàgg boobu xam pourquoi. c'est parce que coow la am mais riisul. riisul déedéet. combat moom riisul vraiment mais. Ada ah, Fass daan Zos nga ne riisul. mu jàkkaarloo guy gi guy gi daan Zarko daan keneen ak keneen ak keneen ak keneen. ñaari champion waaw léegi nag yow wax nga li tax sax riisul li tax riisul wax nga ko parce que tey dafa am dafa am li kii waxoon sànq kër dafa am lu mu waxoon mu dama siy ñëwaat tuuti gis nga làmb. c'est que doy na waar goo xamante ni. gis nga ku ci ki ci nekk rek ko mën a xam kii seetaan la mu gis rek la ciy xam mais ki koy dundit la mu ci sentir rek la ciy xam du dégg gis nga guy gi tey bu doon tey par exemple sport bi tubaab yi ñëw ko yor doon ko gérer guy gi ak Ada du ñu bëre non lamba toolu ci ay mayante sens Aliou Mané malgré yaa gën a xam waaw dama dem xam nga tey boo demoon tey fu mel ni au niveau des comme par exemple nga dem États-Unis wala Allemagne wala Angleterre sport bi ci nekk taay ba ci nekk ak ka ka nga koy defal waaw comprendre nga. moo tax ma ne làmb yii làmb yi nga xam ne tubaab bi tey par exemple bu doon tubaab bee ko ŋànk yoral ko boppam Ada Fass ak guy bi duñ bëre. non bu dee ci taay bu dee ci taay. Ada Fass li muy pesé ci poids guy gi li ñuy pesé ci poids mën nañ leen boole ñu bëree. ci loolu loolu règlement la sax. non wax lan moo tax. parce que loo wax lu ne am na lu tax lan moo tax nga wax loolu. jërëjëf foo loolu laa la loolu si ah. loolu laa la loolu lay bëgg a a expliquer. bu dee ci bu dee comme taay bi nga bi nga préciser noonu non seulement duñ bëre. d' accord okay. mais dama la bëgg expliquer ne la Ada Fass coo ni coow bi toll bëri bi tollut noonu ak naka dee dégg gis nga tey bu ñu doon teg kayitu kër làmb kese bu raxul dara du ma jël sama xaalis di ko teg ci Ada Fass làmb boo mais loolu am nga sa choix la. waxuma waxu bëgg de. Uh-huh. non xam nga. non waxuma bëgg. xam nga choix bëgg la. saa à man dama choisir kii. ndax la sama xol ko taamu. Uh-huh. man waxuma foofu damay wax li nga xam ne par exemple. bu fekkoon Sénégal yi téeméer lañu xëy na fukki mën nañ koo bañ parce que wax te kenn tegu ci dara yombul. Mm-hmm. mais li ëpp ci Sénégal dinañ d'accord ni lii xam-xam bu leer la. Mm-hmm. que ni Ada Fass cool yi ni mu toll bëri bi tollut noonu cool yi ni mu toll mm-hmm. xeexam tollut noonu. cool yi ni mu toll résistance am tollut noonu guy gi bu doon na làmb mbër dong dong dong bu doon mbër téeméer la. juróom-ñeent fukki cër yëpp mu ngi si guy gi. ok si yëg ni mbër la si ndëgër laay gi nekk ci moom mhm. si pas-pas bi mhm. si si njàmbaar gi si fit gi si bëgg bis bi si xam valeur victoire mhm. loolu lépp dafa daje si guy gi. à la phénomène la. phénomène la maanaam nit la koo xam dafa ñëw bokk ci làmb. indi coow comme ni ko bari bari di indi. indi coow tey boo doon lim. Euh, ndaanaanu làmb yi Siteu doo ko ci boole mais fooy taxaw wax ko c'est très compliqué nga taxaw ni Siteu du ndaanaanu làmb mais du ndaanaanu làmb bu dee dëgg rek moo neex yàlla ndax tey tey ku mel ni euh, li ci rëg-rëg nga gis ko si bëre si fulla si fayda si bu niilee sax di jooy newul si Siteu te booy tàmbali di lim ndaanaan ci kooku ngay tàmbali jëm ca kaw. ku ci mel ni rëg-rëg dafa am mbir mi deret bi dox daw si moom. tey ku ci mel ni Mamady Ndiaye gis nga. yëg-yëg boobu muy am si làmb nga xam ne daanu dee sax moo ko gën a boo tegoon tey sa naf sa dem nga daanu mu jël dee te daanu. loolu newul ci Ada Fass mais dafa nekk si guy gi ñu ngi koy gis. gis nga am na communication boo xamante ni moo nëbb ni guy gi buggul dafa dafa bañ defet mooy heure bu daanoo da gis bu toogee si plateau bi day sant yàlla. mais bu ubboon xol bi xam ne dee sax moo ko gën a daanu. mais loolu il faut nga nekk ndaanaan pour mun koo xam. kon Ada amul sens bu bari ci combat bi. ci kaw ci naa daan xam nga pourquoi mu mën a daan. c'est parce que làmb Sénégal. dafa ak li mu baaxoo li mu làmboo xam nga ni dangay wax sa xam-xam rek mais fa ñu mujj noo ko xam parce que dafa am leneen lu mu làmboo. waaw loolu am na moo tax ñu ne la ku a xam fii doon am ku mu xool guy gi ànd ak man ñu la doon nuyu si far ñu daje coow boole la ñu sànneen ngemb barki seexul xadim duñ ñul sax euh, njool ñool bu Zarko. Mm-hmm. Ada Fass ne guy gi man damaa mënee ci ponkal. Mm-hmm. yow défenseur nga mën attaquant laa. Mm-hmm. mais tamit euh, professeur dama lay dama lay dama lay dama lay fekk si sa kàddu boobu noonu. tamit foog nga comprendre dara. dafa def euh, euh, lutte traditionnelle. dugg na mbapat. boo xoolee lamb séeréer. Ada da ñëw yu bëri si. guy gi tamit pareil jaar na ci mbapat guy gi tamit jaar na ci mbapat li si guy gi def sax defu ko ci. léegi boo xoolee aada mm. gis nga génération aada ñetti ñetti ñetti ñi laa gis ñu nekk ci di compétir ci mbapat yi muy aada Fass muy Pokola ak euh, beneen magam bi. Euh, muy euh, kii kii Jacob Bal Jacob Bal ñoom rek laa gis ci seen génération ñuy dugg ci mbapat yi di daal mm. est-ce que xam nga ne aada dafa am caay-caay yu bëri aada dafa mën a bëri. wane na ko jël bi mu daan jos rek. bu mu yàggul dara loolu loolu aada dafa mën a bëri xam-xam la. boo xoolee moo qualifié day ba mu ñëwee esat ñëpp dañ ne woon qualifié day ko colal ñu bëri ñu bëri bàyyiwuñu ko ñu bëri xaaruñu ko woon ci moom. sur tànk bi. da koo dóor ba pourtant si tam moo andi woon maa ngi esat. dëgg la ah. parce que boo xoolee aada. amaana Zarko sax moo xaw a moo xaw a baare yoonam tuuti. moo ko moo kale. kooku nag ku mu daan war naa ku mu daan ci làmb kenn du la ne kii. lan mooy ay fort ci aada pour pour pour pour pour bu jàkkaarloo moom ak. guy aada moment bi ñu toll nii moo guy gi leen kese lay def mooy bu at yu ne taxaw xaar. aada xaar guy gi guy gi du ñëw de. na xaar guy gi te bañ a topp supporter bi. amoon na mbooloo ok mu bëri boppam mu bëri adversaire bañ a bëri supporter yi. bañ a bëri supporter. dafa parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk làmb bi dala jaral boo xoolee guy interview mu mujjee génn lan la ko wax ñëpp dañ ñëw dañ ma jekku ci gàllaaj mais loolu it dama ko ay pion la aada nag na ni mu war ay mbokkam ngem nañ ko jàppale nañ ko doole nañ ko boo xoolee waa Fass taxaw nañ pour combat ba aada Fass taxaw nañ ci bu baax a baax baax baax a baax. Mm-hmm. aada boo xoolee doole bi ma andi nii ci combat bi andi ko contre Zarco. andi ko contre Zarco. kon gis nga ni masse bi volume bi. instant am na volume. am na volume am na volume. volume nag ak doole duñ benn mun nga am volume guy gi du ma ngi ne am na volume guy gi formam bii moo am andi nii nii depuis kañ boobu nga yëg formam bi. contre Siteu ban làmb rek contre Siteu contre Siteu. mais contre Siteu guy gi dafa régénir contre Siteu ah, la a sec contre Siteu dafa sec. xam nga njool. foog ngeen comprendre dara. njool contre dafa sec. guy gi combat bi dafa jël volume. d'accord bi jël na fa professeur mais man su may dégg seen xeetu communication bi si wàllu làmp fi ngeen ne nii ah. damay bëgg jooy. Ah. xam nga lan sama <laughs> sama xol di tooy. Ah. Eh, da nga ne Ada dafa mën a bëre ndax mm-hmm. mbot bi mu mbot ko li fay. da nga ne Ada dafa mën a bëre ndax ni mu daanee sos. Mm-hmm. c'est-à-dire il faut ngeen comprendre benn affaire. Mm-hmm. c'est-à-dire man su may wax ni diw dafa desee mën bëre. damay daa am bëre bu may sentir pour di ko wax. d'accord parce que boo seetloo moog sax da ko fàq delloo ko caxabal. d'accord mais Zoss dafa nekkul ndaanaan boobu tamit ci làmb. professeur doon ndaanaan ci sa kanam yombul de. c'est que noo xaaral noo c'est-à-dire laa comprendre ah. Uh-huh. c'est nekkul ndaanaan boo xamante ni même kulifay moom nekkul boobu xeetu ginne boo xamante ni mën na bañ a daanoo ci loolu. Uh-huh. xam nga tey gis nga caxabal boobu noonu mu def euh, euh, Zoss. Uh-huh. boo ko takkaloon quatre-vingt-dix milliards mu jékkoo ko noonu Zarko waxuma la doole bi doole Zarko ëppee ko noonu dañu tolloo doole du ko daanee noonu xam nga pourquoi. parce que heure boo ko fàkkatee moom sixième sens am mu ngi mu ngi mu ngi bàyyi xel ni comme def na lii lii moo ci war a tege parce que day nekk ndaanaan comme yow. fàkkat dama kon mais deuxième tour bi lii rek la war a mën a doon. est-ce que comprendre nga. cest ñaar ñu mën a bëri nekk ay ndaanaan dëgg du loolu la koy daanee. kon Zos nekkul dafa nekk ni koo xam ne. dafa nekk jinne yu doy waar yooyu nga xam ne boo ko daan tey ku mel ni Tidiane Faye boo ko daanu loolu ma d'accord ni yaa mën ci réew mi damay d'accord ni yaa mën ci réew mi mais Tidiane mënoo ko daanee loolu parce que boo ko fàqatoon du doo du xaar caxabal boobu dafa nekk tànk bay ngay caxabal nga ko nga dul fekk ba di ko ko def mais Zoss mën na ko xaar parce que bërëm daa am fu mu yem mën na bëri ndax am na lu mu daanee nit mais bërëm dafa am fu mu yem dépassé wul dafa am ñoo xam ne dañuy bëre tout ko dafa mel ne nga ne jour yi am na ñoom dañuy jot nga xam ne fii laa war a paas ma paas tubaab bee ma ko jàngal mais am na ñoo xam ne mën nañ bàyyi lu dépasse yi loo xam tubaab bi sax xaaru ko si ñoom loolu dafay nekk si nit <laughs> mën-mën googu daa am kooku du ñooñu ngay duutee yenn duut yi du du du ñi ngay daanee sos ngay daanee yooyu xeetu ndaana kon mën na bëre mais bëre bi tax ma doon wax newul ci Ada balaa nga ko doon xam nga takkal ko ngemb wàccee ko boole ko ndaanaan yi ñu bëreeg moom mille combat du daanee loolu. kon na professeur. Eh, coach. waaw réaction guy gi Ada Fass. réaction wu guy gi Ada waaw waaw sa réaction gis nga Ada Fass man damay nit li mu wax rek. dama ko koy nangul parce que point de vue mais yow gis-gis mais man li ma gis-gis man sama gis-gis xam mooy lan. suñ la joxee sarax nga war ko jox euh, kuy niroog Balla Gaye. jox ko Ada photocopie wu Balla Gaye la jamono commencement am na différence tuuti nag mm. waaw waaw waaw am na différence am na différence tuuti xam nga différence yi mooy lan Ada fas maanaam génn beeg coow leeg aada dem na fii dem na fee dem na fee différence bi loolu rek la mais ba ci biir bëri yi hmm. weccitu bëri yi am na ci gis nga qualifier plaquage bi mu ko plaqué ba aada di di ko taf mbot qualifier dafa diis mais weccitu bëri kii bëri la day takk ngemb man damay man xale laa comme ñoom damay takk ngemb di bëreek ay nit. gis nga nit am na fu mu lay toll boo ko déclenché mbot. Mhm. pour nga daan ko ci day jafe. mais boo xoolee ba mu koy déclenché ba mu ba mu ko dóoree placage déjà wéeru na ko xoola dafa tël loxo bi mu jóg ci kawam mu déclenché ko mbot moo waral mbot bi rëy lool te Ada Fass nekkul boobu lay soog a mbot. Moustapha Mbodj benn kii boo xamante ne maa ngi woon. deuxième combat deuxième combat bi mu tëb la kulifay mbot bi ala kulli xaalis day ala daw me bu doon da koo mbot bàyyi éliminé bu doon dafa bàyyi triceps bi mu mu mu libre mun na ko mbot mais mais wet gi nii lay teg rek mun na ko yegg yeggali ba mu jaaxal wa ilaa mun na ko dóor mu xam ne ah épaule bi daal ni mu bàyyi mais boo bloqué triceps yi après mu am day comme comme la voie est libre comme effectivement jël mbot jaaxal ko mais ñun ñuy seetaan dañuy xam ne mbot na ko quoi mbot na ko ndaanaan ne comme ci boobu la kii mais gis nga xeetu bëri bi may wax ne moom newul ci Ada Fass warabul kaabati newul ci moom mais tereew ko nekk ndaanaan de mais dafa am bëri bi ma bi cooli fi mu toll bëri bi toll noonu laay wax. <laughs> Ah, waaw mais cooli fi mu toll moom wax dëgg yàlla moom dépassé na ah, ma ne ndax toll na ko bëri cooli wala toll goo xam ne coow Ada Fass. rëy na rëy goo xamante ne. guy gi pour nga xam ne ku nakaree daan la. si te tëlewul de bëri nañu deux fois maa ngi moom. waaw drapeau si Sidi Mbacke. Mhm. bëri nañ ko 45 minutes ba ma koy daan yëgu ko. bëri nañ sita ah. bëri nañ euh, euh, ba ànd nañu man ak moom mu yóbbu moom ma bëreeg Modou Anta Kees mm-hmm. ñu bëri fa prix de ay moom it bëri naa ak moom 40 minutes mm-hmm. final Modou Anta ñoom moon mbapat boobu waaw ah, mbapat guy gi mii moo demoon demi final moom demi final la ñàkkee comprendre nga mm-hmm. dama la bëgg na la sita ku mën a bëre la et pourtant ba muy bëre guy gi barki Serigne Saliou si ngay nangu ni guy gi da nit koo xamante ni comme comme comme waanewul guy gi moo waanewul mhm. guy gi bu waane woon mhm. mhm. nga gis ndaanaanam mais waanewul mais li gaa ñi am am na lu ko ëpp mais waanewul te bëre waane moo koy génnee te ku mel ne ci boîte vocale man buy bëree damay kontaan xam nga programme parce que xam nga ko programme yi kontaan <laughs> man boîte man mënuma seetaan nit kontaan ku dul boîte voc man boîte vocale kese laay seetaan kontaan xam ne maa waa dama ko damay bëgg li muy def parce que dama gis ni bëri bi li ci war a am bàyyiwu ci dara da koy jox ba mu doy si xeex ba si bëri ba man buy simmeeku rek di waaj a taxaw si géew bi barki Seydunaa Muhammad waxtu boobu su ma si amoon doomu góor dama koy tuddee parce que dama si am cofeel parce que dama li a waaw ah. ko ci loolu ko ci euh, guy quoi non guy gi amul caaj quoi guy gi am tey boo jëloon boîte vocale bu ko daan loo guy gi ak que li boîte vocale am am na lu ko gën a toog mais boîte vocale mooy génnee feeling bi tey kon côté foofu côté côté bii laay wax xoola Zarko Zarko man damaa toog benn dëkk ñu waxtaan ne ma mbëri may leen billaahi Balla Gaye li muy mën mën mu bëri rombul Zarko mais ak nakaree wax foo koy waxee mais man xam naa ni Balla Gaye man faale ma Zarko de dama ne la Balla Gaye li muy mën mën bëri fan ngay taxaw ne dàqul bëri Zarko mhm. te barki naa Seydunaa Muhammad dàqu bëri mais ak a jafe wax il faut nga nekk ndaanaan pour mën a xam ne. daa ko non loolu boo taxee ko ak yaqin nii peut-être am na. foo ko foo xamante ni lu extraordinaire la barki Mouhamed ok xool njool. ah a génn émission a a ngi dégg. ok ok amul problème man fi may waxee xaaral ma coach dafa doon ma a ne la. coach waaw. il faut nga comprendre pour xam ki ki mën dëgg. Mhm. les des fois ni day nekk ndaanaan. te physiquement doo mën a gis ndaanaanam. Mhm. mais ndaanaan ni moom day xam ne kii bëreem bu waane woon. àdduna kenn daaxutu ko bëri côté boobu laa bëggoon leer. amul benn problème wóoy ma amul benn problème ci la bokk ci la bokk maanaam xam nga lay waxee si làmb chaque jour man damay damay damay seetaan nit. avant may doon coach dama doon seetaan amateur laa woon. Mhm. parce que damaa takk ngemb ba tekk ngemb. am na yoo xamante yu ci bëri. coach yi dama naan li ma leen di rawee chaque jour mooy takk naa ngemb ku ci takkul ngemb rek gënoo ma mën li ngay def te diplôme bi nga yor laa yor ndax damaa def formation mais maanaam fi may waxee moom mooy li tax ma wax la Ada Fass ko photocopie Balla Gaye la Ada ba muy bëreek sama copain dafa mbër ah, loolu wane na rek ni bërekat la mhm. jël bi dem na bay jeex mais am na fu mu ko jatan am na fu mu ko jatang combat boobu kii bu ko amoon da koy tegaat am na fu mu ko jatan si jeexukaay bi fi nga la dugal loxo loxoom la dugal si si xarale tànk yi ba pare wéeru ko moom mooy doo jóg mu du mus a jóg loolu ku munul bëre du ko def. contre ba muy bëre deuxième combat bu rëy boobu. combat bi da ko mettre en place boo xoolee Ada ak ak Tapha Mbeur c'est à distance bi euh, Tapha Mbeur waroon am pour mën a teg combat bi fi mu ko bëgg. à la base dafa nekk distance boobu mettre ko après son président dégluwu ko mais buñ demoon ñëwaat bi ngay buñ demoon ñëwaat buñ demoon ñëwaat seen waxtaan bi du dooree neex mais comme que loolu amu ci pour nga répéter mais gis nga distance bi nga xam ne si la Tapha Mbeur waroon mën a am pour mën a régler Arafat teg ko ci axe yàlla xam na ni bu am distance boobu amoon Arafat du bëre mais da ko mettre en place après lekk distance ba mu jeex liwtoo xaju fa xeex xaju fa xalaat xaju fa mu daan te léegi léegi léegi loolu si lan nga koy dugal si mën a bëre non xaaral xaaral dañuy waxtaan waa d'accord loolu si mën a bëre la waaw calcul non génne moo ko si dama ne lamb lan la calcul la rek mën a calcul la. d' accord kii jali bii su dama koy xool du ma gëm. d' foofu laay calcul foofu la defal calcul grand yi ñooy daan de ñoo mën. grand yi ñooy daan. Hmm. defal calcul grand ñoo ci ëppale mais booy tamit ñu ngi daan non maanaam dama la bëgg a wax grand contributeur bi ñu koy wax mooy ñi ci kaw moo tax may waxuma lay ñi suuf ah. ma ñi ci kaw boo defee calcul laa wax grand ñooy daan xam nga lan moo tax grand yi di leen daan dañ leen ëpp weccatu bëri mooy bi ma lay wax sànq te dañ leen gën a mën bis gis nga grand bu fi teg calcul bu normal da ngay daan booy bi parce que booy bi day naan day ñëw ne man maa war a daan mhm. parce que ki fi nekk kii nga xamante ne moom laa war a bëreel dafa jekku ay magam mhm. daan leen mhm. léegi si kaw loolu mag ji bu calculer rek tuuti day daan et pourtant li ngeen ni pression la waaw moom laa lay wax pré mais pression la kon tey bu doon damay saafara dama naan kon li nga njëkk xalaat ne boo ne mbër moom la ñu loolu la ñuy démonté teg ko ne bëri naturellement xam ne de bëri la rek. tout court mais loolu ñëpp boo ñëwee man. moo doon daan ay war a daan nga yenn combat bi maa te bëree goo mais teg nga sa bopp ma ñëw. parce que boo xoolee xa ba léegi boo xoolee. Ada Fass ak guy gi. guy gi bu doon may moom bul ma laal bul ma bul ma laal bul ma jege laay waaw Ada Fass bu doon may moom bul ma laal bul ma jege laay bëre comme lan bu mu jàppante guy gi bés bu jàppantee guy gi ba ba ba ba mu ma deux minutes wala ba mu mat une minute et quelque. Hmm. pour mu daan guy gi dina jafe. aar aar bu jàppante wala bu jàppante wala guy gi mënu mënu ko daan non non na xeex. kam lay xeex. xeex. booy sant ne hmm. laa déglu ma ñëw déglu ma xeex gis nga hmm. xeex. pour man xeexu làmb kenn tëlewu ko. ankay non xaaral ma ñëw. après di nga ñëw non après di nga ñëw. man man damay damay bëgg nga bàyyi ma ma développé après bu ma développé yow nga wax. d' accord parce que xam nga lu tax. Mm-hmm. parce que ku ci nekk am nga sa point de vue bopp. d' accord mais comme maanaam naxee xam nga loolu naxee. <laughs> comme table la la la je maanaam su ma waxee ba pare après yow nga dellu si. na am nga am 45 minutes ci biir uh-huh. boo nee da nga may bàyyi bu 10 minutes dem ko mu eggale ko. dama ne na xeex bu fekkee mënul xeex kon du daan guy gi. moo ràmmale kon exemple noonu la la léegi du daan xeex xeex xeex comme parce que xam nga moom laa lay xeex ban xeex boo xamante ne nii déglu ma xeex boo xamante ne nii mhm. gis nga kurpeñ xejul si nit boo ko dóoree li mu xamoon day réer mhm. bëri na mbër yoo xam ne mën nañ bëri lool mais boo jëlee coup mu yàqal la sa làmb mhm. guy gi mais résistance boobu guy gi daa mën xeex guy gi mënul xeex guy gi mais mbër na da nga ne mu duma ko waaw non exemple koo daaxul xeex waaw moom laa exemple dama leen guy gi mënul xeex ñun ñëpp ah. nangu nañ ko mais abe tamit xam nga xeex bu ñor boobu nekkul mu def zos eh, andi na xeex ba dóor ko mu daanu. andi na andi na xeex ba dóor mu daanu. non da naan moytu xeex ba dóor ko mu daanu. waaw moom laa lay wax exemple dama la ne. Ada bu ñëwee andi xeex laa la wax. waaw combat bi 100 pour cent moom moo koy moom. wallaay mais bés bu bëree bés bu bëree. guy gi da koy daan. bu bëree guy gi nax ko daan. parce que poids déjà de un man poids bi ma jëkk jàngat ci ci Ada Fass rek. waaw mhm. boobu normal loolu. bi nga jàngat. Uh-huh. ci Ada Fass. Mm-hmm. normalul mais coach xanaa parce que guy gi boo xoolee guy gi. xanaa kon ñoom ñaar ñëpp. guy xaar xaar xaar coach. xanaa ñoom ñaar ñëpp la. Mm-hmm. guy gi dafa volume. waaw moom laa lay volume bi mu yor nii baaxul. yow da ngay jaawale. njool poids bi nga gis guy gi yor nga ne baaxul ngeen comprendre foog ngeen comprendre dara. gis nga yéen ñaar yéen a ngi naan guy gi mën na xeex kii ni Ada Fass mën na xeex. non non non non non non non non moo tax ma ne xeex. ñoom ñaar ñëpp kenn kenn la ci xam ne mënuñu xeex waaw ñoom ñaar ñëpp mënuñu xeex. waaw mais loolu la xeex buntu la. Ada buntu la ko mën a def pour dem jàpp. ok xeex sàcc jàpp fu baax. fu baax liggéey. ok mbër. loolu du xeex xam nga xeex mooy lan. mooy kon man comme comme li Gris Bordeaux def. ñëw rëdd teg tableau di xool say mbagg lan moo si yëngu ak moom fan la loolu dóor nga bàyyi loolu mooy xeex. léegi comme ni ma cokkaas am. buntu dem bëri di lay la ko conseillé laa lay dëggalal waxam. ok xeex la ñu wax dañ ne xeex. dama ne xeexkat mooy comme Gris Bordeaux moom mooy xeex mais kii li mu wax loolu yenn na maana mais après li ci tege moom mu dem jàpp Ada Fass amul benn ku ko mën a conseil ne ko da ngay taxaw fi nga taxaw guy gi ñëw nga jàpp ko daan ko. demoo jàpp ji ko daan ko da nga ko gën a jafeel combat. Ada Fass mënut a daan. non Ada Ada day dem. waa léegi moom mais buy lan la war a nekk buy dem lan la war a yóbbaale. loolu mu ngi des ci kër si ah mhm. bi ko yéen si làmbam yor di ci daan mbër loolu du mooy daan guy gi nii. kon amul sens. de Ada Fass bu manqué xam mais tegu ma ko nag ci cadre xam ne defal naa ko dafa am lu gars yi di fàtte bu ñu wax ci làmb. comme lan xam nga làmb dafa am lu mu baaxoo. waxee ma côté boobu de. Uh-huh. làmb bu naturel man ci laay wax. ok léegi li mu àndal man loolu du ma ci xuus parce que kenn ku ci nekk yaa xam li la dee des fois da ngay tiim cuuni mu ñëw daan la ba ba nga ba nga ba nga xalamu. Uh-huh. door a yëg ni daan nañ loolu man wax man ci cadre bi mu ko def cadre sport dama ne bu ñu dajewoon ci làmb ji noonu di bëree ñoom ñaar solo ku nekk kenn ku ci nekk li nga am comme xam-xam li nga am comme doole li nga am comme gaawaay ak résistance boo leen boole woon Ada Fass loolu mu am muy caxabal boobu muy fàqat bi muy mbot bi du guy gi loo koy daanee te moom bu yéexee sax guy gi bu ko dóoree mbot moom moom làmbam du yegg. mais tamit professeur. est ce que comprendre nga cest xeetu kele bi mu yor. du kele boobu mooy daan guy gi. naturellement la kele boobu yoru kele buy daan non non kele bi mu yor yàlla mi ñu tiim du loolu mooy daan guy gi. mais jëli ba laay du ko daan. jëli ba foog kii itam comprendre dara. te guy gi benn te guy gi te guy gi. te ah, guy gi damaa rek. nga comprendre dama ne. Mm. guy gi defetam bu mm-hmm. ko def mokkal la. at laaj ko mokkal la nan la ko defee daal. non bu mujj waaw léegi nag yow attends léegi yow. waaw non non question bi yow yaa moom parce man duñ ma posé question. merci beaucoup. waaw léegi déglu ko moom mu tontu la ci voilà dafa mel ni comme li booy di fooy naan xaw ma euh, tubaab du du du moromu naar xeese leen boole. ah ok rëg rëg guy gi si jëmmi boppam ba muy ñëw si jour làmb ji yàlla mi ñu tiim ñëwul sax pour maxinel wax ma la ak muy jéem a daan guy gi guy gi si boppam wallahi azim ku xam mbër dëgg xam ne guy gi ba muy ñëw mhm. daa ñëw rek di wan gars ngeen foog ne du da ngeen foog ne man dama ko ragal da ngeen foog ne du ngeen foog aw ma droit bu ñëwee ma taxaw li cadre bi kese la indee si làmb yi ñëwul pour ñëwul pour nit rëg-rëg si boppam kele bi mu def guy gi mu daanu kele bi sax daa yeggul mhm. kele bi du kele sax bu ñor moom créé na keleem rek guy gi daanu dafa mel ni comme mbër bu sonn war a daan di xaar nga bu ma ko wala xale bu jonkoon bëgg ko bu max nga romb ko day tëdd làmb moom fii la ko c'est-à-dire du ko Ada guy gi gis nga confiance bi mu am entre moom ak Ada Fass ko pertoon ci contre moom ak Boy ñaa contre Boy ñaa gis naa guy gi di wax di mel ni kuy bëgg a jooy <laughs> ñu laaj ko lan ngay jooy mu ne sax parce que dama gis xeex biñ may xeex sama koñ. Mhm. pression wu làmb la rek. waa mais revenir na ci keroog nee na loolu waxu waxu waxu fa erreur de communication la woon. mais loolu bu jeex na xam nga yéen a gis sama ginnaaw donc waaw léegi la pression la woon. parce que loolu du communication toll si veewu combat nga jooy pour ñun sa deret bi tàng ba ngay jooy pour ñun bis bi nga war a jëmmalee say supporters ngay jooy pour ñun benn revenir bi nga war a ñëwaat indiwaat ci làmb ngay jooy ngay jooy naan sama askan liñ ma def mais yow da nga doof la làmb yu weesu na foofu ah contre moo moo moom moo rëg rëg communication guy gi yëpp doo dégg benn bu mu naan la maa ko mën maa ko bu doole déedéet mm-hmm. li gars yaakaar amut li ñu foog du ma def loolu mais musul am am décision ne lii laay defe non non comme musul ñëwoon pour mais Ada Fass bi attends attends attends Ada Fass bii Ada Fass bi déggoo li guy gi wax ku ñëw di ma sotti dara su ma la jàppee yow ma man xëyaam ngay fanaan yi nay waxte bu ma laal li nga foog mu neex la mu naqare dinaa la ko def. non bu arbitre sifflé moom. bu arbitre sifflé su ma la xaaree sax ñëwoo. après man dama lay jël ci. guy gi barke alxuraan wax ko booy ñaaw wax ko rek rek. mais foog ngeen comprendre dara. lan rek rek wax ko booy ñaaw. kon Ama Baldé waxu mbër waxu mbër waxu mbër moom yorul doo sax. non man la laay wax. Abdou Dieng Abdou Dieng. non mayen njool mayen njool mayen njool mayen njool ñun parce que dañuy bàyyi suñu yitte yëpp dagg suñu biir dem toog stade di seetaan di nga gis ne mbër jàpp jàpp jàpp moroomu mbërëm si signature ne ko dinaa lekk rek laa lu de mais man waxuma loolu sax xaar arbitre bi siffle mu mel ni kii doon wax ak ki fa nekkoon figurant la nekk effectivement gis nga foog ngeen comprendre dara Sadio Mané yow mbër nga chaque jour nga def wax mbër loo xam ne ne yow defoo ko chaque jour mbër waaw xaaral non non chaque jour toujours ma wax leen tey sujet bi du du en tant que le professeur Mané.